The defence which gives Brighton another option. Oh, Jackson to behind here. And Jackson! Well, he took that shot. Jackson was there. The Desantis gives Brighton another option. Oh, Jackson to behind here. And Jackson! Well, he took that shot. Actualité de football avec Abdullah Gueye. Abdullah Gueye ci kàddu gi jaa ngeen jëf mbokk amateur yi ngi leen di nuyuwaat bu baax ñu ñëw fii ci xibaar bi ñu fi dabandi euh, Ismaïla Sarr ay mbiram leer na nañu léegi officiel na foofee ca olympique bu Marseille ñu ngi leen ko doon wax ba ba léegi euh, ay mbiram nag nekk na loo xamante si ni gaaw na lool ginnaaw bi nga xamante si ni olympique de Marseille dugg na ci euh, yëf yi taxawut officiel na jamono ji ñuy wax ak yéen delluwaat na foofee ca Ligue 1 bu France waaye nag Ligue 1 boobee dañ cey taxaw ni dañ cey taxawandi ndax kii di Ismaïla Sarr miin na ko lool euh, ndax ci club bi ñuy wax FCMS fa la jëkkee en 2016 2017 FCMS bàyyi fa nag dem ci club bi ñuy wax Stade de Rennes en 2017 2019 ca France waaye ginnaaw bi la fa jógee en 2019 2023 dem ci club bi nga xamante si ni mooy Watford foofee ca Angleterre bawoo fa dellusiwaat fii ci Marseille kon mu nekk ñetteelu clubam foofee ca France mom Ismail Sarr ñu di ko ñaanal euh, ay ndam yu bare bare fekk ko foofee ca club bi nga xamante dem na fa ñuy wax ci keneen ku officiel buy Marc Bartra moom nag delluwaat na ca dëkkam ca Espagne ginnaaw at moo xamante ni def na ko foofee ca Turquie delluwaat na fa ci club bi ñuy wax Royal euh, Betis moom nag ñu fàttali ni librement la demee foofee gratuite la fa demee ñu wax ci ki nga xamante ne mooy Edison Cavani am na accord ak Vocassignor bu moytuwul euh, ci lu yëggul dara danañu officialiser li nga xamante si ni mooy ay mbiram moom Edison kafani euh, moom nag foofe fa la fas yéene juillet ci lu yëggul dara dinañu xam ci ay mbiram lu leer nañ ñi jaa ngeen jëf mbokk amateur foti li leen leen indiloon ñu ngi ñaan ngeen di abonné ak partager boo ko defee dana yokk li nga xamante si ni mooy doole paas bi ak bés kolos bi dana tax vidéo bu dugal rek ngeen mën cee jot jaa ngeen jëf. L'actualité du football avec Abdullah Gaye.